asalaamaaleykum wa rahmatullah toute la diaspora sénégalaise na ngeen def euh, maa li nuyu ku ci nekk si turam ak santam waaw man la Mohamed rek ñëwati encore di waxtaan ak yéen te di leen souhaiter une bonne et heureuse année euh, mu doon année boo xam te ni yàlla faj aajo yëpp waaw ku ci nekk li nga bëgg sa xol rek yàlla fajal la ko allah euh, ci barke Seydina Mohamed waaw tey thème bi ma la doon andi rek mooy thème mu la ndax euh, ñun suñu culture la culture sénégalaise ñëpp xam nañ ko depuis depuis depuis la décennie des temps donc loolu dafa mosoon nekk si suñu biir waa mag ñi dañu daan sutural lu bëri bëri bëri mais dañoo gis ni jamono bi nii euh, loolu mu ngi nekk en voie de disparition en voie de disparition te loolu yëpp li ko waral rek mooy euh, ñeen ñàkk xam na surtout l'ignorance wala bàyyi suñu tradition di di copier loo xamante ni bokkul si suñu culture donc aussi loolu euh, war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jéem yee askan bi euh, waxtaanaat ak ñoom bu baax euh, suuxat xol yi ak xel yi parce que loolu loolu nekk dafa dafa nekk lu ñaaw a ñaaw parce que da gis ba ba réseaux sociaux yi génnee ba léegi nii am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ñun suñu genre yi dañ ci nekk dañ ciy liggéey waaw am na ñoo xam ñu ngi ciy liggéey am na ñoo xam te ni ñu ngi koy utiliser naka su noonu te ñun sénégalais boo xoolee ñu ëppal lépp lu xew dañ ciy ëppal da ci ëppal ba nga xamante ni duñ ci def nag sul noonu donc tey nii ngay dugg ci réseaux sociaux di filmer par exemple sa petite amie wala sa jabar wala sa jëkkër ah di ko di ko di ko yoole ci Facebook mu nekk lu ñaaw a ñaaw loo xam te et puis duñ sax duñ ci sax rendre compte ni conséquences yi muy am parce que yaa ngi woon tout yaa ngi wone toute une génération euh, lu ñaawteef boobu ngay def noonu ba pare loolu dina bu bu nekkee bu nekkee centre am ñoo xam dañ koy jël sax dugal ko dugal ko ci yenn réseau yoo xam ne dootuñu ko mën a génne à vie donc loolu en tant que sénégalais war nañ ko war nañ ko war nañ ko xalaataat bu baax di xool bu baax di yee ñi ñi te waxuma la sax ñu koy def sax dafa ñaaw yow boo nekkee un musulman wala nga nekk un chrétien war nga xam te lii c'est c'est c'est c'est la la religion contre ça donc yow loolu boo ko defee xam nga bu baax li nga def ni lii lu ñaaw a ñaaw la surtout euh, ñi nga xamante aussi tamit dañ koy publier ñoom tamit ñoom tamit ñoo yées parce que nit ki bu defee lu bon yow nga ñëw di ko publier mais mais yow yaa ko gën a bon yàlla wax na yonent bi wax na ko ci benn hadis ne na yàlla yàlla gëbb na ki nga xamante ni mu sootoral la ci guddi gi ah nga xëy suba teel weer sa bopp ni géej donc yooyu noonu war nañ ci di ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax a baax waaw on est des on des croyants du ma sax parce que Sénégal ñun ñëpp a bokk on est des croyants donc dafa am yoo xamante ni dafa bokkul si suñu culture donc loolu loolu euh, dañ koy euh, dañ ko mës a dafa nekk loo xam te ne lu ñaaw a ñaaw ñaaw la donc voilà loolu moo doon waxtaan bi donc euh, ma bëggoon rek ñu xalaat ci encore bu baax a baax a baax balaa ñu def quoi que ce soit te tubaab yaa ngi ni tey mu ngi nii boo boo xoolee ñu dañ ne dañ naan toog di xas bi tubaab yaa ngi nii ñu ngi def porno ñu ngi def lii mais ba Sénégal sax am na fa xoolal xoolal léegi sites yooyu ñu naan ñu euh, kii euh, porno Sénégal am na fa mais loolu doomu ñan la suñuy doom la ñu loolu la nekk lu ñaaw léegi su ana ana sutura bi ana sutura bi ma loolu laay wax ci loolu lépp ah kilifa diine baa ñu ngi ciy wax loolu dafa nekk lu am solo loo xamante ni dañ koo dañ ko euh, dafa bokkul sax su suñu suñu culture donc dañ leen war di di di leen ci yee di leen ci lu ñaaw a ñaaw ngi noonu sénégalais yi di ko di ko def ah ba pare di jàngal toute une génération bi ñëw euh, lu ñaawteef yu mel noonu donc nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ab jullit dafay def yëfi jullit ab chrétien de def yëfi chrétien moom la ñu wax ñu ñëpp ñu ñëpp benn lañu voilà nañu def li nga xamante ni moom mooy avancé loo réew loolu avancé wul réew da nga leen gis internet bi bu mu génnee ba léegi nii liñ ciy def lu ñaaw a ñaaw la waaw te loolu vraiment ñu ngi koy euh, ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax di ko naqarlu aussi parce que nekk ce n'est pas un bon enseignement pour euh, pour les pour les enfants donc loolu euh, tamit kilifay yi tamit nañ surveiller bu baax aussi seen doom yi di xool buñ buñ defee nag sulu loon tamit nañ jàkkaarloo ñoom wax leen ko voilà jëm ko jëm jëm jëm a dindi genre culture yu mel noonu waaw tax mu ngi mu ngi yàqu si si société te loolu vraiment nekkul loo xam te dañ koy rafetlu lii nag mën nga ci jaamu yàlla bu baax a baax waaw ku ci nekk rek parce que lépp loo gisee ci àdduna choix la donc internet bi nii mën nga ci jaamu yàlla bu baax a baax def ci parce que ñu ba ñu ngi ci def ay def yoo xam ne am solo lépp looy publier na doon loo xam te dinaa mën njëriñ doomu aadama foofu la waxee donc sutura euh, fi a am te dina fi mës a am ba keroog ñu ñu génn àdduna parce que lu bon bu amul woon euh, lu baax doo ko mën a ràññi waaye yàlla bañu sax ko tooñ mais li bañ sax mooy nga koni di ko tooñ ba keroog ngay dee donc bu njëkk daan nga gis sax nit ñi di def lu bon mais dañ dañ daan sutural seen biir su dafa bëri woon sutura ba nga xamante ni mais lu bon yàgg na fi am xanaa tey la internet di am léegi moo tax ñu koy weer donc loolu warul tax ngeen jël di affaire yi di ko di di ko weer ku ci nekk aussi am nga tey loo xam ni daf nga lu bon loo xamante ni buggoo kenn ko ko xam parce que doomu aadama lañu voilà l'erreur est donc ku ci nekk laa wax de même bu fekkee da nga nekk kilifa am nga loo xam ni bëggoo kenn ku ko xam mais yàlla moo la suturaal wala ñi ñu suturaal la donc ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax nañu suturaalante suñu biir waaw na nañu waxalante loo rafet waaw boo gisee lu ñaaw boo ko mënee di nga di boo ko mënul di nga naqarlu ko wala sax nga woo nit ki conseil ko ka ngay ñëw di ko weer wala di ko filmer am na ci ñaaw ñaaw mus naa seetaan benn waay boo xam ne bu ñu wanoon ci internet mënuma dem ci jox exemple mais lu bëri bëri ngi noonu am na ci benn waay boo xam te ne ngi doon tëddeg benn xale boo xam te ne morom presque doomam loo moo si woon na ci internet ba gars di ko génnee xam nga mu tëdd ndaw si après ñu ñu génne ko ci réseaux sociaux donc yu mel noonu dafa ñaaw xam nga donc c'est pour te dire lu bon yàgg na fi am mais dañ ko war di ko moytu voilà donc te te nit l'erreur est humaine mais dara dara euh, dara gën a neex nga delluwaat revenir à tes à tes à euh, propos nga xoolaat bu baax li ngay def nga teg ko ci yoon waaw comme li ñuy wax rek dañ ne yàlla yàlla bañul nga jaamu ko mais lu mu bañ mooy nga bañ koo eggale seytaane bañul nga jaay nga jaamu yàlla de mais li muy bañ mooy nga eggale ko donc nañ ci bàyyi xel loolu bu baax a baax ay on est des personnes dañuy juum waaye nag boo juumee nga xam ne juum nga nga teg ko ci yoon donc sutur boobu ñu am boo xam te ni moom moo tax ñu naan la Sénégal nañ ko nañ ko dañ ko sàmm nañ ko sàmm valeur bu am solo la valeur bu am solo ku sutural doomu aadama rek yàlla dina la sutural ku sutural doomu aadama yàlla dina sutural donc nañ sutural te suñu biir ku ci nekk am nga ci comme li ma wax rek am nga ci loo xam te bu ko kenn ko donc nañu bañ a xaawi sutura di respecté doomu aadama di leen teg ci yoon bu nekk ki juumee nga woon ko ko bu defee nag su loolu nga xëcc ko wax ko dëgg loolu mooy dëgg loolu mooy yëfi yëfi yëfi euh, yëfi croyant waaw donc tey waxtaan bi laa amoon li meen di wax di leen ñaan gudd fan ak weer euh, te di lañ jaajëfal incha allah ba euh, prochain incha allah thème bi asalaamaaleykum wa rahmatullah